asalaamaaleykum mbokk yi <clears throat> journalistes yi particulièrement ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp ah merci c'est nuyu di leen remercier ci li ngeen ñëwé téwé ci wote bi nga xamné coalition Yewwi Askan Wi woon na leen ko waane bala may sori dafa am ñuma yobante jox ma seen gante muy le président Khalifa Sall dafa am dëj waroon fee nekk Ousmane sonkotim wax na ma ma wax leen ngàntam ma nga soor ba gis ngeen coow li fa xew suñu frère Boubacar Camara mi ngi ci bitim réew waane Mor Ndiaye ngi nii toogal ko fi suñu jigéen Aïssatou Mbodj moom it wareem fee teew mu gàllankoor ndep mi ngi nii toogal ko fii je crois que ah Moussa moom it maître Moussa nga xam ne ma nga bitim réew <coughs> yónnee na ndaw mu teewal ko fi ñi ci des <coughs> ñoom ñëpp a yem dañoo am ngànt li ma bëgg a njëkk a leeral mooy lii nga xam ne commission moyen logistique te Cheikh Tidiane Dieye jité ko mom ak suñu jigéen Fatou Blondin Diop am xel mi am xalat mi wax ko conférence des leaders ñu and ci du pour déposer caution élection caution élection ñepp xam nañ ne li jëm ci maire yi fukki millions ak juroom la li jëm ci département yi fukki millions ak juroom la loolu am nañu ko ba pare ci coalition bi lii leneen moo ko tax a jóg te suñu ndaataango yi fi jaar léegi wax nañ leen ko boo gisee nag ñu am fit ñun ñii jàkkaarloog askanu senegaal ne leen yelwaanuñu wutuñu sarax mais dañoo bëgg ku nekk gëm ci li nga xam ne ñun ci la ñu nekk nga ñëw dugal ci sa loxo li la yàlla mënul mooy gor yi fi nekk yépp seen loxo dafa set amul kenn ci ñi koo fi mën a dut baaraam ne luubal na alalu réew mi Macky Sall sañu koo def ay ñooñam sañu koo def parce que yéen a ñu gën a xam ni nga xam ne moom lañu ñu yoree réew lépp luy suñu alal moo xam pétrole la moo xam gaz la moo xam tali yi ñuy def moo xam saxaar yi nga xam ne ñu ngi koy def fu ñu yëngatu rek am na loo xam ne lu ñuul la askan wi nawul leen ci njortu nañ ne fab nañ alalu réew mi luubal ko ñu dem ba xeebuñu dara léegi ñu ngi ci njaayam passeport diplomatique waane nga gàcce ngaalaama ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition yeewu askan wi loolu dalu leen te yaakaar naa ne du leen dal ba dinday tukki lii nga xam ne nag moom la ñuy def dañoo bëgg mu nekk lu lew ndaxte ñoom li ñu yore di ko yëngatoo di ko téye réew mi di ko campagner ñëpp xam nañ ne dara lewu ci waaye ñun li nga xam ne moom lañu bëgg ngeen ñëw bokk ko ak ñun dañoo bëgg mu nekk lu sell bokk lu nekk lu lew ak nu mën a toll xam nañ ne lu lew fu mu fekk luy ribaa ak lu libaa rëy rëy lu leew li dana ko daan kon nag juróomi dërëm ngeen ciy dugal fukki dërëm yi téeméer yi millions yi amul dara loo xam ne xeeb nañ ko ci muy ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew mi te képp ko joxe danañ la muur am malaan ba kenn du xam lan nga joxe ak fan la jóge loolu mooy sutura wane leneen li ci am solo mooy ku nekk boo ca dugalee sab dërëm na nga am yàqin ne dërëm boobu fu mu dugg dinañ la defal compte rendu ne lii ak lii ak lii ak lii lañ ca def ndaxte nag duñ nangu mukk ngeen gën ñoo gore fab seen alal dugal ci ëllëg si biir ñu lubal ko bu compte rendu jotee ñu leen dugg na fii génn na fii loolu buñ ko sax jarul ñun dem élection locale parce que xam nañ askan wi ñu buñ ci te du am kon nag boo gisee fu mel États-Unis président yi di am dolé. te duñ mën a luubal askan moy bala len leen di fal ak ko même si amé ay milliards melni Donald Trump dafa am fo xamné ne lay limité nga dépenser waaye la ngay dépenser ci campagne yépp ci askan wi lay ñi ngi ay milliards ku nekk 5 dollars qui 10 dollars borom milliards, yi milliards de dollars ñu dajalé milliard, lepp def ko compte rendu

kon nag askanu senegaal ñu leen di ñaan ngeen dimbale ñu ci lii nga xam ne mooy yeewi askan bi di yaakaaru Sénégal yépp ndimbal mi mooy bu ngeen boolee yéen ñëpp jox ñu seen alal noo mën a toll dangeen ñuy tënk du ngeen ñu yeewi dangeen ñuy tënk tënk bi mooy lan mooy ala kulli aal danañ am obligation parce que dañoo yoré sen alal il faut que ñu ànd dem législative parce que xaalis bi kenn du ko tasaare àla kulli al il faut que ñu am ay pexé ba dem élection présidentielle kon nak lolu nga xamné mom ngeen ni duggal indi ko fii ñu ñu am li nga xamné ni mom lañu yalla yàlla wërsëgalee ñu def ko ci mooy ñuy dimbali élection biir ñu raxas réew mi ci tolof tolof yi nga xam ne nekk na ci ci métti yi nga xam ne nekk na fi bis boo yeewoo nit ñaa ngi jooy suukar yokk dawlin yokk ceeb yokk laaj ak ak laaj sax dégg laa yokk na xorom ak xorom xolle lépp yokk na ñu ne yokk nañ budget Sénégal oo oh, nañ ko waaw ndax nekk nekk du askan wi yokk la loolu ay question yoo xam ne nit ñi war nañ ko posé kon daal gudd gàtt Euh, loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ngeen xam ko di leen ñaan yéen waa presse bi li ngeen jën seen contribution laajuñ leen xaalis na ngeen ñu ko tasaareel rek am ngeen xaalis mais bu ngeen joxewul xaalis tim dee leen ñu ko tasaareel bis bu jot ñu nekk ci réseaux sociaux yi si nañ ñu koy tasaareel bis bu jot Cheikh wax na leen ko yëf yaa ngi nii yeewi askan wi numéro yaa ngi mii koppar la alaaji Ibou Sakho doon wax koppar c'est bon hein bokk na ci mbir mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu